ñu ngi leen di jaajëfal sunu mbokk internet bi ñuy suivre di ñuy topp ci chaîne bi ñu naan ko deux cent vingt 221 people comme ni niñ ko baaxoo di def nag tey dañoo fas yéene dalal benn gan nag ndax mën naa ne gan la nag euh, géej nga fi yéen a ko namoon ñu koy tuddee Cheikh Arona Sow Cheikh Arona Sow nag euh, bokk na ci sëriñ si nga xam ne comme ni ma koy waxee tout le temps yàlla may na leen lépp lu bokk ci wàllum paj ak wàllum ñaan ak lépp loo xam ne dëxañoo na ci wàllum asraar Cheikh Arona ñu ngi lay Cheikh di lay dalal ci 221 people. waaw. <clears throat> waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu marhaban wa ahlan wa sahlan ñu ngi leen di fay nuyoo ñu ngi leen di nuyuwaat di jaat yéen di nuyu mbokk àddina di nuyu mbokk internet bi di nuyu mbokk deux cent vingt et un people di leen ziyaara di leen massawoo coono di leen baalu xaq di leen baal xaq te ñaan borom bi subhaanahu wa taala boo leen ñun ñëpp baal ñu defaral ñu suñuy mbir dimbali ñu aar ñu yiir ñu musal ñu te muccal ñu te mosal ñu ci xéewalam yi ci barke yonantam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di wax marhaban wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërëjëf euh, Cheikh Arouna Sow ginnaaw di seet yu sell ñu ngi lay fay bu baax di lay dalal ci chaîne bi niñ ko baaxoo di def ak ñëpp. tey ñu fas yéene leen koo indilaat comme que yéen ko namoon boo ak léegi yàgg na gëj nañoo gisee fi may njëkkee nag ci lu bokk ci seet laa njëkkee seet nag dama seetlu lu bëree bëree bëri suñ jógee dinaan seet dafa xaram bëggoon naa xam côté ban moo waral ñu naan seet dafa xaram ak lan moo tax nit ñi suñ jógee balaa ñoo def dara ne dinañ seetlu seetlu pour lan. waaw <clears throat> seet de yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu wax ci mbir. gannaaw bu yàlla nee kenn xamul luy xew suba alimul xaybi wa shahaada lu nëbbu daal nee ne moo ko xam illaa man irtada min rasul lu dul koo xamante nii sob na ko mu xamal la dara ci mbiru yàlla dédi nag damenu yàlla dafa neexut euh, sori parce que yàlla mooy ki nga xam ne lu ko neex lay def mun na la wax ne lii duma ko maye mu may ko keneen munoo si dara mun na la wax ne lii duma ko def mu def ko loo ci mën munoo si dara <coughs> kooku domaine am la waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla tànn mu dox suñu digganteeg moom nañu loo leen bëgg lu leer topp leen bii lay yonent loo leen bëgg lu lëndëm bu leen ko teree bàyyi leen ko mu ne wama aataakumu rasul fa xuzuuhu wama nahaakum anhu fantahu soo leen bëggee yàlla sax topp leen yonent boobu yonent boobu nag sallallahu alayhi wa sallam am na luñ koy askanalee te mooy ay ahadisa ay ahadis Euh, domaine la comme ni nga ne ni ngay ne euh, histoire wala nga ne philo wala nga ne histoire zo wala nga ne benn domaine la benn matière la moom ahadis ahadis boobu nag dañ ci askanale yonent bi ahadis yu wér boo ko doon jàng nag ay ay ay mbir la bi ci gin mooy bi ñu tuddee mutawaatir am na mutawaatir am na saxiix mawquuf mursal munqati yu bëri la daif hakada nit ñi nag du ñu dégg ahlu xadis yooyu almutaxaddisuun lañ leen di tuddee du ñu dañ di wérante ci xam-xam boobu ndax nag romb na ba pare am na ci nag lu wér loo xam ne buñ ko waxee rek ñëpp dañuy jàpp lu wér la lu mel ni xadis boo xam ne dañuy wax ne Buxaari moo ko génne wala muslim ngeen baal ma ci laltaay googu rek pour indi cëslaay bi ba pare. am na ay xadis yu ñu askale ne yonent bi sallallahu alayhi ñu ne yonent bi nee ne képp ku dem ci seetkat. ñu ne seetkat mooy kan ñu ne ki yore pettaaw di ci seet wala ki yore ramli sungu uh, ci suuf di ci seet yonent bi yonent bi salaa salaam nee na boo demee ci moom mu seetal la wax la benn mbir soo gëmee mbir moomu rek daanag weddi nga li wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> ngeen baal ma nag ñépp soj ma soj mm-hmm. at bu bees bi moom daa ñëw indaale grippe mm-hmm. ñu ne yonent bi sallallahu moo wax loolu ñu ko defee boo demee ci man ata kaahinan képp ku dem ci euh, seetkat ñu koy tuddee jiitu yonent bi loolu li ñuy wax sëriñ amul woon sëriñ yi amoon ay sëriñ la abbe yi la woon abbe lab yi nga xam ne walla yi ñuy doon tuddee njabarkat wala yi ñu doon tuddee yi nga xam ne ñoo doon noon bagaasu yonent yi jiitu woon yonent bi ñooñu am na ñu meloon noonu waaye nag jiitu yonent bi amoon na ay seetkat parce que yonent bi sallallahu baayam waajuram ngeen baal ma ci baat bi dañ ko war a rendi mais bi ñu jaaxlee bi maamu yonent bi ne su amee doom yu bari dina rey kenn bi mu demee ba jaaxle xamul da koy rey wala nan la koy rey ci seetkat la dem biñ demee ci seetkat boobu moo leen ne kam diyatun kuntum tudiruuna biha qaalu ashrat al abali min an naami qaali farjiu bi mu seetee mu ne leen am na ñu ne seetkat la am na ñu ne boroom xam-xam la waaye li gën a wér daal seetkat la wax ñu ne dafa ñëw ne leen xool leen ñaata gëléem bu nit reyee nit ñaata gëléem lay fay ñu ne fukki gëléem mu ne dem leen ngeen teg fukki gëléem ngeen teg ko ngeen ngeen wantale wantale mooy ngeen lotori <clears throat> su gëlëm yi génnee ngeen rey gëlëm yi su génnee ngeen xam ne gëlëm yooyu perte na waaw ngeen tegaat yeneen gëlëm fa ziidu wa ziidu wa ma saxami ni ko borom téere bi waye léegi tudd nañu foofu Shayba ñaareel bi Khadija jël na yeneen bi yóbbu ko ci benn waay boo xamante ne nii boobu xamuñu yonent bi li li ko dal lan la ndax ñii ne nañ day bëgg dof ñii nañu lan la Xadija di def pexe ba yóbbu ko ci benn mbir benn nit kooku mu ne ko kii yonente la yaa lay ak a neexoon ma fekki bi ñuy génnee yonent bi màkk di ko muy gàddaay di dem feneen kon jiitu yonent bi tamit jinne yi dinañ doon dem ci asmaanu première bi di déglu li yàlla di tëral exemple tey yàlla bu bu naree taw suba wala mu nar a def suba ay mbir day toog riñoog malaaka yi danaan malaaka yi suba yow diw sa programme lii la malaaka bi yore ngelaw li mu nekk ko yow mm, programme ngelaw bi suba nii lay demee aleer bi lay dow ki yore taw mu nekk ko taw bi millimètres yi lay taw ki yore dee mu nekk ko ñaata nit ngay rey ki yore wërsëg mu ne ko ñaata nit ngay jox yàlla buy programme jinne yi dinañ doon dem di déglu programme bi mais buñ ñëwee dañ ko doon sol bu xaaba yi ñiñ doon wax sëriñ ci jamono yooyu jërëjëf doguma la xam naa duñ toogee ci ponk boobu sax mën nañ cee fanaan donte li nga ci kii lépp am na solo mais ci biir seet boobu la ñuy des rek bëgg a xam ci at mu bees mii ñu dugg nii ndax lan ngeen ci gis en tant que yéen itam sëriñ ngeen te yàlla am na lu leen may ci seet lan gis ci at mu bees mi di 2020 at bu bees bi incha allah du nekk at bu naqari di di nag ñëpp mënuñu bokk mu neex ci ñoom waaye du doon mukk at bu naxari waaye nag su amee bu muy naqari ci waa tali gi la waa tali bi. ñu nekk si tali bi moom dinañ am ay xelka naqar naqar. Euh, yan loo ci gis maanaam ci tali ay xat-xat ay accident ak yu mel noonu yooyu moom su yeboo ñu jëg si bu baax a baax a baax mhm. ndaxte. wàllu tali bi daal moom ñooñu moom dinañu am ay ay naxar dinañ am ay naxar ci wàllu tali bi mm-hmm. ñaareel bi ci wàllu sport bi ci wàllu sport bi soit bëre soit football soit leneen ñooñu tamit mm-hmm. dinañ am xel ka ay bagages yu leen xaw a naxari tuuti loolu de <coughs> yàlla moo xam lu xew mais koo gis dafa am jumtukaay yu muy xëyee lan mooy loolu mooy boo xëyee suba dangay ubbi sa capot oto xool sa soos huile oto bi wan la ne am naa huile nga xool ndox mu wan la ne am naa ndox nga dugg table rebord bi taal benn lampe du signalé da ngay am fitu dem su amee tamp làmp bu signalé pono bu wàññeeku chaque jour sa xel day nekk ci pono bi dafa wàññeeku mun na jeex ni ko la oto bi di wone ki yore jumtukaay leneen ci seet wala ci yu mel noonu yu mel noonu lu mel noonu dong lay am. waaw mhm. en tout cas du nekk at bu na xari incha allah sénégalais yi dinañ ci dinañ ci am am am am victoire ñi nekk bitim réew tamit dinañ ci am xel naqari tuuti. yooyu tamit lool loolu daal laaj lañ ci gisagum tali bi sport ni nekk Europe. jërëjëf jërëjëf dañuy jàll ci beneen ponk mu bokk ci papier ndax. kuy wax euh, mbirum tukki di voyage di nga am këyit yoo xam ne leer na ndax mën nga faa dem yàgg fa tagga témbi te ndax dañ koo gis mu bari lool dañu ñëw ci lu bokk ci wàllum papier ñu yaatal ci ndax concours duñu ne papier du question concours kese ak ñuy déposé ñuy def wut seen visa pour tukki ak ña fa nekk jafe-jafe yañ fa nekk waaw affaire kayit dañu ñu woon di chaque jour bu ñu waxee rek ñu may ci mbokk yi dama xamul nag des fois am ma woo ne def nañ ko des fois am ñu ma woo laaj nan lañ koy defee des fois sax am ñu ma woo naa leen ko defal mbirub kayit vraiment wax dëgg yàlla mayoon naa leen ci loo xam ne loolu mu jarab la waxoon naa leen ko te ne woon naa leen mu jarab mooy loo xamante ne nii boo ko defee di nga ci gis satisfaction incha allah ma ne la leen woon mbirum kayit daal ku mun a jël sa tur calculer ko ramzu calcul bi nag ñi nekk Europe chaque jour mun na leen tromper parce que calcul yi bokkut. peut-être waaw li tax calcul yi bokkul mooy li commencé dafa am lu ñu tuddee calcul waa waa waa waa soow li commencé peut-être Maroc jëm ñun suñu réew yi ñoom ni ñuy calculer exemple tey Sine su wow trois cent lañ koy calculer mais demee boo jëmee côté penku jëm côté indo Indonésie yi côté Arabie Saoudite yeneen côté yi peut-être Sine su mun nañ ko calculer soixante place su Saad. damay bañ nag soo gisee may wax loolu mooy ñi nga xam ne ñoo nekk si parce que téere yi loolu da ciy am ñoom dañuy jënd téere yi nga xam ne ñooy calculer xaraf yi alif moom dépôt nañu ne un baa ba nañu ñaar la jiim dépôt nañ trois mais am na xaraf yi ci biir yoo xam ne ñi ko ñii di calculer ak ñi ko ñeneen ñi di calculer day xaw ute loolu nag jar na bàyyi xel nga ut calcul bi nekk fii bi nga xam ne mag ñi fii moom lañ doon calculer te mooy abajada bi su nekkee am nga calcule boobu boo calculer sa tur ba mu jeex ak sa sant soo ko bindee Mouhamed ibnu Amina ak ak Ahmad ibnu Amina nga def ko njaq boo ko sangoo lim yu toll ne tur bi soo ñaanee kay dinañ la may wax naa ko waxati ko waxati ko ku weddi nag demal nga essayer su calcul bi baaxee mbind mi baax boo ko sangooyee ba mu jeex boo ñaanee kay ñu may la kooku man maa ko may gratuite soit am na tam leneen am na yeneen yeneen yoo xam ne doo ko mën a tudd fii parce que ay ay alquran la yoo xamante ne nii dañ ko sélectionné du temps bi du la may nga yore kayit bi naan lii ngay bind lii ngay bind mel ne en tout cas des fois nit dinañ ci woo ñu may ko ci gratuite des fois tam nit ki dina am gàllankoor bu ko teree am kayit li gën nag mu dem dindi gàllankoor boobu parce que am na ñoo xam ne bi ñuy dem xamuñu lu leen yóbbu ñii dañoo dem pour dow ñii dañoo dem dañ leen génnee ñii dañoo dem uti ñii dañoo nangam ñii dañoo nàngam léegi nag baax na balaa nit kii ñaan kayitam mu xam ne état bi mu toll ndax mun na am kayit ci zahir ak ci baatit mhm. ni mu amee ca zahir noonu la amee ci baatit waaw mhm. dañuy dugg ci beneen ponk euh, mu dee wàllum ubbeeku mel ni ci looy dugg nag da nga ciy bëgg ubbeeku ndax euh, da nga ciy dem ba danga ciy bëgg am tawféex comme ni ñu koy waxee tawféex mbaa taysiir lu bëri doon euh, ngëneel ci yow ñu del siwaat ci ponk bi wàllum ubbeeku donte ñu bëri suñuy xëy duñu sañoon dinañ ko am lu bokk ci ubbeeku moom yàlla nañ ko yàlla may waaw ak tawféex ni nga ko waxee ak taysiir waaw loolu lu baax la tawféex taysiir fatxu moo fi bàyyi ñëpp ndax ku xëy rek bëgg nga am ñi tëdd xëyuñu sax bëgg nañu am rawatina nag ñi nga xam ne dañoo xëy bàyyi seen lal yi bàyyi seen njaboot uti dara waaw en tout cas am na lu ñu lu ñu ay tattal yoo xam ne gaaw na ci ubbeeku di waaw soit ubbeegu alal soit ubbeegu am oto soit ubbeegu leneen ubbeegu oto laqat jaakum moo ci gën a gaaw mu jarrab la xam naa nag dina am ñu ma si topp parce que man yàlla daf ma nattoo bëgg oto may changé oto rek gars yi di ma si topp daan ma jox ma sekkere oto aw ma sekkere oto. waaw su ko defee wàllu alal wax naa ko ba sonn kooku yenent bi moo ko wax du man yenent bi moo ne am na benn saar bu nekk ci ku koy jàng guddi di nga am alal kooku boo delluwaatee yenent bi moo ko confirmé ñooñ yenent bi confirmé ko mag ñi confirmé ko saar boobu tamit. mën nañ la baaxee benn lim nga koy nga koy wérd wala nga koy bind di def ko njaq di sang ndax tuuroo alxuraan dara nekku ci waaw am na tamit saar bu yàlla tëddee ubbeegu suuratul fatxi ubbeegu ci li ngay yëngu waaye kooku tamit du euh, jàng saar bi baax na waaye bind saar bi yenn lim yi di ko sàngoo loolu tam baax na naka noonu tam la amee ci ci ci ci ci yeneen ci ay aaya alquran yoo xamante ne nii boo xëyee di ko def pour nga ubbeeku day yomb naka noonu la amee tam ci sarax sarax lu gaaw lu ubbi nit la mm-hmm. booy xëy nga saraxe waxuma waxuñu nag nga jënd benn affaire rek fanaanoo ko di ko wëndeel sa bopp di ko sarax loolu loolu taxul sarax jóg. baaxul même bu xaraamul. Hmm. lislaam bugg ko parce que li l'islam buggut hmm. lu naroon dal ci yow lu bon nga yéenee ko keneen lislaam nee ne la rek defal pour yàlla fànqal la ko yàlla nag daf mun affaire bu koy fànq bàyyi ko rek moom moom dina ko fànq du ci lor ci walla loolu mais nag bu nekkee yow da ngay gis ne musiba dafa war a dal ci yow nga sarax pour fànq musiba bi mais nga wëndeel sa bopp ba pare jox ko nit dafa mel ne danga jël musib bi jox ko nit mbokk jullit kon booy saraxe saraxel rek maa ngi saraxe ngir yàlla aar ma maa ngi saraxe ngir yàlla yàlla moom mun na affaire ba defal la en tout cas sarax day guddal fan mus naa leen fi nettali benn xissa xaw ma yéen laa ko nettali xaw ma benn euh, benn waay boo xam ne dafa ñëw ne ci ci yonent yàlla Suleymaan yéen baal ma rek ma dugal ko bu ci xajee mu ne yonentu yàlla Suleymaan yow yàlla def la may nga xam li rab yi di wax damaa bëgg nga may mi rek ngir yàlla ma xam li rab yi di wax yonentu yàlla Suleymaan ne ko ah baax na yonentu yàlla Suleymaan may ko benn mbir mu xam li rab yi di wax fa ñu toog rek ñu jékki-jékki gis mu gis benn muus bu ndaw muus bi di ŋeew di jooy xam ah, nga ñun dañ naan muus maa ngi ŋeew mu dëgg muus bi rek yàlla xamal ko li muus bi di wax ndekete muus baa ngi jooy ñëw ci beneen muusam mbokkam muus waa ji ni muus bi waa yow yaa ngi jooy lay jooy muus bi ne ko suñu yaay def war a dee suba te comme suñu yaay def war a dee suba te moo doon uti lekk jox ñu ñu lekk ñun kon damay jooy suba ñu lan la ñu war a lekk beneen muus bi ko ëpp mag bi mag magu magam magu mag magu muus bi ne muus bu ndaw bi noppil gis nga waajee toog mu ne ko mu nekk gànnaaram gi suba dina dee bu deewee ci la ñuy lekk waa ji dem jël ganaar gi fajar jaay ganaar gi ndax bañ ganaar gi dee muus bi xëyaat di xaar ganaar gi dee fekk waa ji jaay na ko mu ñëwaat ci moroomu muusam di jooyaat ne muus bi ah waa ji kat danga ne woon ganaaram dina dee jaay na ganaar bi waa ji ngi leen dégg de bu nekk jaay na ganaar gi waaye suba xaram mooy dee waa ji yeewu fajar suba teel jël xar bi jaay muus bi ñëwaat di jooy ne ah yow sama mag danga ne woon waa ji xaram dina ganaaram dina dee jaay na ganaar gi nga ne xar bi dina dee jaay na xar bi léegi nag lan la ñuy dundee ñun mu nekk waaj bu subaa dina dee ñu dëjal ko ceeb yi dina des bu ñuy rey nag yeeg affaire yooyu su ko defee dinañ ci lekk ba suur waa ji dar ay loxoom te bu bàyyi woon ganaar gi dem rek xar bi du dem nag bi du dem te du dee yooyu am nañ ci ay xissa yu bëree bëree bëri yu ñu mun a nettali moo tax chaque jour saraxe am na lu mu lay dindil léegi nag am kayit saraxe baax na ci ubbeegu saraxe baax na ci surtout ubbeegu surtout tamit sarax bi nga xamante ne nii mooy sarax bu nekk au top parce que sarax yi dañuy dañuy utanti dañuy sutanti dañuy utanti day am jamono yoo xam ne tey tey tey jamono yi ñu toll nii moo gisoon saraxu màngo il faut ut leneen loo ko changé parce que mango amul fii Sénégal ah. day am période tamit boo gisee saraxu xaal nooy def ah. wala nga gis saraxu gëléem te am na sarax yoo xam ne yàlla dafa ne lan tanaalul birra hatta tunfiqu doo ngeen am mbaax mbaax mooy lan mais alal mbaax la ubbeegu mbaax la kër yu rafet mbaax la soxna su baax mbaax la. oto yu bëri mbaax la jàmm yaram mbaax la wéru mbaax la yàlla doo leen am mbaax lu dool da ngeen saraxee li ngeen bëgg. kon sarax aussi nit ku nekk dañuy dugg ci biir turam ak turu ak datti naissance am dool ko mën a génneel saraxam man dama nit dina ma woo fii naan ma dañ ma woo yoon dama koy wax sarax nangam li ci gën a bëri sax dañ naan ma xaaral ma yónneel sarax man may dugg ci marché bi du ma yónni xale yi sax su ma defee sarax bi day am jàmm wala muy tukki nii naan ma damay tukki damaa ragal sama oto mm-hmm. am na sarax boo xam ne da koy aar ci yoon bi ba mu egg fu mu am na jërëjëf kon ubbeekoo uh, ngoog dégg ngeen ni ko Cheikh Arouna Sow waxe kon nit ki looy dugg moom na nga ci lijjante doo ci mën a am sa ubbeeku sax am na solo mais gannaaw ubbeeku nag dañ ne uh, bayre to bayre doo koy wutit il faut di nga wutaal lu mel ni kaaraange comme ni ko nit di waxee protection ñaar ñooñu ñu ñëw ci Cheikh Arouna waa ñaar yooyu li gën mooy nga am protection soo nga am bayre boo amee bayre amoo protection doo dem hmm. da nga yàqule soit nga yàqule soit nga yàqu soit nga alku Sénégal na xàmmee ko alku ak ko amul dara nit dina am lu dul jeex fekk alku na bu yàgg waaw léegi nag protection moo jiitu lépp soo amee protection ba nga xam ne bët parce que bët bu aay am na làmmiñ bu aay am na am na làmmiñ yoo xam ne bu ñu waxee lu baax day yàqu su ñu waxee lu naroon baax dootul baax yàlla moo leen bind boroom lépp am na bët yoo xam ne bu ñu gisee lu baax mu yàqu su ñu gisee lu naroon a baax dootul baax parce que yàlla moo leen bind kon doomu aadama dagan na ci moom mu def li yonent bi def gannaaw buñ ko jàppee yàlla daf wàccee yonent bi ay aaya qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlana wa ala llahi falyatawakkali mutawakkilu falyatawakkali muminuun wax li waxal gaa yi nga xamante nii ñoo lay fexeel ni am naa protection boo xam ne mënoo leen ci man dara lu dul yàlla sama borom inni tawakkaltu ala allah wa in yamsaska allah bi du wala aay yooyu ñu tëddee ayatul munjiyaat aay yoo xam ne dalay dalay muccal ci bët muccal la ci làmmiñ parce que bëri na ñoo xam ne ñetti mbir yi ñoo leen tardel làmmiñ moo nekk ci ñoom ndeysaan da nga leen gis ñu nekk ay nit ñu war a dem mais làmmiñ moo leen tardel wala liggéey wala rab parce que ñett yooyu dong ñoo mën a tardeel nit lam làmmiñ mooy cat wala ñu liggéey la wala rab nekk ci yow làmmiñ nag mun nga am protection boo xamante ne nii làmmiñ bi bu ñëwee puissance bu mu waroon am du dal bu dalee tam du la wàññi dara soit danga yore benn montoor montoor bi jékki-jékki rek dagg làmmiñ bi ci montoor bi la dal wala làmmiñ bi dal ci verre bi mu dàmm walla làmmiñ bi dal si dal si dàll bi dàll bi dagg loolu moo gën muy dal si wala benn xar boo ñëw ci kër gi mu dee walla leneen moo gin muy dal si yow kon naka noonu tamit nit ñi fii senegal dañu soxor ki leen gën a soxor ci kaw suuf gisuma leen gisuma ko Sénégal rek ngay gis kuy xëy di am nit ñi di xëy di ko di njab di ko njabar pour mu daanu. bayre bu sax moom baax na bayre bu sax. bayre tamit aussi mooy lépp bépp doomu aadama war ngaa fexe ba am bayre waaw bépp doomu aadama. war ngaa fexe ba am bayre parce que am bayre mooy tax ñu tudd la mooy tax nga am mooy tax nga moo tax nga xew. te nit loolu la bëgg te loolu yàlla moo ko tudd yàlla moo tudd yu nit ki bëgg. muy bayre muy wallu am-am ci ci ci ñu tudd la si tur ci nga siiw ci nga am alal te walla nga am tur wala nga rafet wala leneen kooku mën ngi ci alquran wax naa leen ko ba tàyyi dinañ ko defee leneen. waaye dinañ ko def sax ci biddiwu nit ki nga xam ne da ko ciy defal bayre boo xamante ne nii day takk dootul fay yooyu du yooyu am nañ ci yoo xam ne moom vraiment wax dëgg yàlla zuyyina linnaasi yeneen ay alquran fa lamma raaynahu surat mm-hmm. ak wala qad karam na bani aadama mm-hmm. ak yeneen yooyu yëpp ay bayre la yoo xamante ne nii mm-hmm. vraiment kuñ ko defal ku yàlla nattu daal nga bëgg bayre delluwaatal ci alquran nga dellu ci ku ko mën nag waaw wala nga dellu ci pël yooyu di def sunguf bayre to na am na am na am na sunguf tam boo xam ne boo ko defalee nit dañ koy tudd parce que lan moo tax dañ koy tudd garab googu dañ koy garab bu ñuy lekk la garab bu am xorom la garab gu saf la nga am na nit ñoo xam ne dañoo neex dañoo am xorom. Mhm. soo leen gisee rek da nga gis ñoo xam ne tamit mhm. am nañu bayre mais siiw nañu mais amuñu bayre nga gis ñoo xam ne dañoo siiw mais dañu am bayre mhm. bayre daal lu baax la. lu baax la waaw. gannaaw kaaraange daal utal bayre kon bay rek kaaraange noonu ni ma ko leen waxee woon rek euh, Cheikh na fajal na leen ko li nekk ci biir lépp dañuy jeexal ci benn ponk mu bokk ci wàllum feebar feebar yi nag benn feebar laa ci jël mu di néew kàttan kër gu mu néew du neex wàllum néew kàttan ngóor waaw xam nga góor moom Sénégal nit ñi dinañ laam-laamee waaye góor dafa am lu mu yore këram gannaaw bu dépasse boo xëyee joxee dépasse ñu lekk ba suur naan ba màndi vraiment sa diggante ki la yàlla booleel te muy sa soxna lu mu soxla ci yow war nga mën a ñaan yàlla yàlla defal la nga munal ko ko sinon boo ko ko munalul tamit moo indi coow li bari rek coow lu bari lay indi yàlla na la yàlla dimbali rek mu nekk jigéen bu nekk jigéen waxin la bu nekkee jigéen bu génn jigéen bu demee ba génn la wala jéggi la da koy perte mhm. ah bu gisee ku la mën su gisee ku la mën mhm. yàlla na la yàlla dimbali mu nekk jigéen bu yem ci yow. ku mën nga wax de. waaw ah. bu gisee ku la gën a nekk góor mun na la bàyyi topp kooku. loolu la ci diine wax. dafa xaraam mais ñu ngi koy fii Sénégal lu xaraam rek lañuy def. kon loolu am na fi. du jeex yaa ma ko gën a xam. yaa ma fi gën a xam ne jigéen yaa ngi njaaloo ah, yaa ma gën a xam ne góor yaa ngi def bis bu nee ñu ñu ne fi biiral nañ jigéen ñu koy ngénte te amul jëkkër waa jigéen bi nga xam ne amul njëkkër jëkkër xanaa dafa bind faatee naan rek am doom ah wala dafa dem ci marché bi jënd doom wala dafa jënd sunguf déedéet dafa lekkaloo góor doom bu juddoo rek jigéen ak góor dañuy lekkalante lekkaloo boobu nag daga na sa jabar mais du dul sa jabar daganul wax dëgg yàlla waaw. Mhm. c'est rek yow ma ne hôtel demal ci hôtel yi sëñ bi hôtel dox nañ de hôtel yi ak yi. Hmm. dañoo dox. ban façon dox noonu. dox mooy dañuy ay nit ñi dañuy ay pasta lañ fay def gis benn jigéen ngeen waxtaan ba d'accord ngeen dem hôtel ngeen fay dix mille wala cinq mille ngeen def li ngeen di def mu génn ñibbi këram nga dem ñibbi sa kër loolu am na fi man dal naa fi otel gis fa ku ma xam dal naa fi otel gis fa ku ma xam bu ñu lijjanti nag lan moo ma fa yóbbu woon mun na sax fekk lool la pour nit ñi moom munoo tilimal nit ñi setal sa bopp waaye yàlla xam na. Mhm. yàlla xam na bi di affaire ngóor du yoo xam ne da ciy kii nit ki pour am loo ko. waaw loolu loolu ci loolu laa nekkoon dama mhm. bëggoon wax de. Mhm. góor yàlla nattoowu ko lu dul lu gën a bon. yàlla may ko jabar mu bëgg jabar bi te mënulul jabar ji natt boobu yàlla nañ ci yàlla musal yàlla ñu may la jabar nga bëgg ko nga munoon ko nga mënoon ci moom dara ba mënutoo ko loolu moo tax ma ne la yàlla na nekk jigéen bu jigéene jigéen bu jigéen mooy jigéen bu gore mun a yem ci yow mais bu mun boo boo mënatul te soxla na ko bu yàggee lambaay ñaaw munal di la toggal di la jàll sa gannaaw mais mu ngi am keneen ku ko mun doo ci xam te yow amoo loo wax kooku yàlla nañ ci yàlla musal moo tax góor ñaanal yàlla ba keroog ngay sangoo suuf yàlla na la yàlla may nga bañ a télé loolu tam am na ay euh, ay ay saafara am na saafara bu ñuy def ci ganaar ganaar ganaar du sonn ganaar béy mun nañ fa dañuy def rapport 24 heures sur 24 mun nañ ko am lu ñuy def ci ñoom loolu yàlla moo ko kii am na bu ñuy booleeg ganaar nga lekk ko am na bu ñu lay jox nga koy naan am na bu ñu lay booleek tamit ci lenn ci béy am na bu lay jox tamit nga koy takk yu mel noonu am na bu lay jox nga takk ko waaw en tout cas yooyu yëpp soo demee ba yëg ne sa ngóore mu ngi wàññeeku da war a jóg rab nag dina ko def soit rab bi nekk ci ku góor ki wala mu nekk ci ku jigéen ki rab mm. général am na ñoo xam ne ay góor dëgg lañ bu ñu demee ci àll bi dañuy nekk góor daganul nag waxewuma ko pour nañ nañ ko xam daganut mooy daganut te du dagan mukk ilaa yawmi diin mooy daganul du dagan mais dama lay joxe exemple rek ñoo xam ne ñaari jabar lañu yore bu ñu aayee si jabar bii maara day taali seen lépp ay mot mais bu ñu aayee ci kii dara du mot su ko defee ñu tuumal kenn ki ñu ne moo ko def jigéen ñi nag dinañ ko def jarul weddi waaye nag rab tamit dina ko def bu nekkee ndaw soos def am àndandoor doo mën li nga mën même boo amul ñaari jabar nga am sa coro boog sa gel soo nekkee sa gel nga mën boo amee ñëwaati sab jabar doo mën loolu bu nekkee sa jabar daf am rab ñu naan cofeel bi wàññeeku wala wàññeeku rab bi day wàññi cofeel bi ba tax xel bi ni mu ci doon nekkee ni nga ko doon bëggee day wàññeeku loolu rab da koy def télé da koy def su ko def su ko defee rek nga gis ku ko mën am naa benn mbir boo xamante ne nii bariwuma di wax am naa wala kii mel ne damay woo nit ñi si déedéet en am naa ku ma ko esel di nga xam loo xam ne su ma la ko bindee jox la ko ba keroog ngay dugg biir bàmmeel doo télé man am naa loolu ku ma ko defaraal jox la ba keroog ngay dugg biir bàmmeel doo télé. am na solo loolu kon ñoo ko bokk déggandoo euh, ñëw leen mu bindal leen ko dañuy jeexal ci benn kii rek euh, ponk mën naa ne benn ndaw la ñu ko doon woowee Rango benn animatrice bu nekkoon seen TV la nag le 11 bi passé mu organisé woon benn soirée soirée bi euh, ticket d'entrée bi mu ngi nekkoon 200000 soirée boobu ci Arouna Sow ban genre soirée la war a doon. waa déet soirée boobu moom lan moo xew ci biir. ah soirée ticket entre deux cent mille. moom entre cent mille moom xanaa boo duggee. doy na waar boo duggee xanaa àjjana la. entre deux cent mille ah ticket bi yem yi cher na. soirée bi soirée bi ak lu ci lu fa mun munti am. Mm. cher na jaru ko ak lu mu munti doon. waaw xanaa. jaru ko na dell ki nit. waaw mais Sénégal laa la wax rek gisuma réew bu leen gën a bon parce que soirée ban moo ci baax sax. soirée mhm. xanaa ànd ak sa jabar dem toog fenni ñu xalamal la defal la lu kii ngeen toog waxtaan reer loolu de soirée boobu de mun na dagar lan loo ci wax mu mel ni kon seytaane daa mel ni moo ah, loolu kay jarul wax boo wootee conférence amul entrée amul dara kenn du ñëw soirée nag da ngay fay ba pare fecc ba ñàkk fay xaalis ñàkk def lu nekk yàlla duma la te te da ngay fay sa xaalis conférence bi jàkk ji jàkk ji demal julli ji doo fay amul entrée. amul fay billet amul dara fajar kenn du dem gee kenn du dem tisbaar kenn du dem takkusaan kenn du dem mais soirée boo xam ne entrée deux cent mille ak dëkk bi fi mu toll loolu man ba tey vraiment dégg naa nit ñi di ko wax mais sama conscience mënu ko nangu réew mi fi mu toll nga def soirée ne entrée bi deux cent mille francs la ah soirée bi lan moo nekk ci biir mënul weesu xanaa dem lekk naan ah dem lekk naan fecc am coro même bu dee laal nga sax jaru ko boo fa amee gel boo xam ne jox na la boppam nga laal sax jaru ko parce que mën nga laal ci lu dul deux cent mille. ngeen baal ma ci wax ji wax dëgg yàlla. dama sonn. mu mel ne doo fa doon rëbb sax di nga fa gis ñoo xam ne tem nga bëgg a dar sa gémmiñ genre yu soirée mel noonu. waa xam nga Sénégal moom na yàlla baal ñi nekk ci kaw ñoo gën a dëng soit sëriñ nga soit nitu nguur nga soit leneen. man dem naa fi benn dëkk du ma tudd turu sëriñ yooyu ay sëriñ yu siiw yu ñuy tudd fii mais ni ma leen fekkee fekkeel foofu mooy yéeme na de. Hmm? ay sëriñ yoo xam ne ay xale jigéen bu dul sa jabar di bës sa tànk. muy bës mu lay bësal say tànk du sa jabar. du sa doom ah. dafa la nga xam ne ah, xaraam na nga laal ko laal laal laal wax teg baaram nii xaraam na mu lay bësal sa tànk te ay kilifa yu ngan Sénégal fii. Île de Saloum gii dem naa fa daje fa ay fii ay nitu nguur yoo xamante ne nii ñi ñu àndal du seen jabar parce que xam naa seen jabar mais ku dul sa jabar looy ànd ak moom foofu di fanaani hôtel ma man yàlla fi ma dimbali sama jabar sax laa ànd ak. am na léegi nag li li ciy des mooy. Mhm. soirée boobu moom kooku moom na ci gouvernement bi tax loolu moom na arrêté. Mhm. kon waa Sànni Jamra di ONG Jamra bi nga xam ne kii ko jiite Mame Makhtar kon coow liñ ci nekk di ci wax. kon war nañ koo gën a mën a dëgëral. maam Maxtaar dañ ko war a dooleel bu dee ay jullit lañu bu dee ay jullit lañu dañuy nekk jullit xam nga Sénégal dinañ julli waaye duñu ay jullit lu jafe dëgg na mais ragaluma ko ba lëz. dinañ julli mais duñu ay jullit mais duñu ay jullit jullit du fen jullit du fen Sénégal dañuy fen jullit du trian Sénégal dañuy trian jullit du sàcc Sénégal dañuy sàcc. jullit du def foo marché Sénégal dañuy def foo marché jullit du war Sénégal dañuy war mais xam ngeen ne loolu am na fi xam nga jullit du soxor c'est pas rek allah heure bi jon allah akbar nga sujj sujud parce que yàlla nee ni inna salaata tanha anil fahsaai wal munkar wala zikrullahi akbar lu tax ma tolli ci lool parce que soo nekkee jullit pire boo xam ne yàlla nangu na su julli doo soxor doo iñaan doo fen doo tiriya doo ràmbaaj waaw mais déglu télé yi wala nga déglu rajo yi. lu wax. ku nekk ba ngi xas sa moroom. Mhm. ku nekk yaa ngi xas sa moroom. ñii billaay billaay sëñ bi waaye waay waay seetale ma yéen ñii seetaan xam ngeen ne Sénégal ñoo dàq fen ci àddina bi duñ wax dëgg. waaw duñu wax dëgg. waaw dañuy fen rek ngeen baal ma ma ne. amul pause de. du ñu wax dëgg bon xam ah, li ma leen wax xam ngeen war nañoo dooleel euh, Mame Makhtar Gueye Mame Makhtar dañ ko war a dimbali waa Jamra mhm. ñu xeex li ñuy xeex fexe réew mi tegu ci yoon moo gën de li gën mhm. mooy li ma Abdou doon wax ñu fexe teg réew mi ci yoon waaw waaye bu njiit yi jubuñu mhm. taalibe yi jubuñu des fois nga mbëkkanteeg sa sëriñ soirée des Eh, commandant bi lay tere yenn affaire yi ngeen bëkkante ci dorog bi ah am de tani bi la war a teg ci yoon boo ko joxee mil francs mu taxañ def ci poosam ki la war a teg ci yoon ngay gis muy def naka su dul noonu sëriñ bi la war a wax won yàlla doo gis ci jàkk ci intérêt doo nga lay topp mais fu réew mi di baaxe réew mi baaxul de jërëjëf ñu tàggatoo a jamono bu ko defee ñu nuyu ñëpp mm-hmm. ñu ngi baalu ñëpp xaq wax ji moom neexut waaye nag dëgg la di jéggalu ñëpp di masawoo ñëpp xaq di ziar ñëpp di leen wax na ngeen baal ma rek yaram bi mooy tàng te wax naa leen ko waaye nag dëgg la nag di wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu